maqaamahu ci taxawaayu baat ba minal fi'li ci jëf ñeenteelu ponki passé yi mooy baat ba ngay wax bañ xam ne passé nga mbaa jëf ja ngay jëf ba wecc passé ni ki bind ci sa loxo ak lu mel noonu amal lafzu daal baat boo fayan xasima dana seddalikoo ilaa sarihin jëm ci aji wóor wa kinaayatin aku dàkkental wa daa xadaahuma ak lu dul ñoom ñaar nee baat bi ñuy wax ba mu teg li passé léeg-léeg mu nekk baat bu wër ci passé xam ne passé dong la mën a doon léeg-léeg mu nekk baat boo xam ne dàkkental la ci passé maanaam xampati boo waaye ku ko dégg xam ne daayis na ko wax ngir passé wala beneen baat boo xam ne du kenn ci yooyu yaar kon ñetti façon la andi woon fa sarixu aji wóor ja maa mooy la nga xam ne fii nekk na ci moom laf su talaaxi baatub talaaq xalaa ay waccin ci gu mucc anam kaana la ca nekkee maanaam saa yoo xam ne ni nga waxee rek baatub talaaxu passé am na ci rek ak nu mu ci ñëwee rek ca wax ja loolu lu wér la ci passé mislu an yaqoola kem wax ne ko anti yow taalixun aji fase nga aw anti wala yow mutallaqatun ku ñu fase nga su boobaa fa yalzamu dana war bi haza juli attalaaxu fase ma wala yaftaqiru te du aajowoo ilaa niyatin jëm ci yéene a nee ndegam boo nekkoon anti taalixun ba kon nee na faawu pase am na waaw boo ci pase itam dee su ko gëm dañuy jàpp ne moom lu néew néew benn am na xanaa kay la nga ci yéene lu ëpp benn wala yooyu waaye benn bi moom mënta ñàkk moo tax mu ne wa mutlaquha lu ñu boyalam lu ñu boyalam waahidatun benn la lu ñu boyal mooy loo tënkut mel ni nga ne ko fase naa la képp yem ci waaye néewoo ko benn néewoo ko ñaar loolu mooy boyal su baa yoon day jàpp ne benn moom am na ilaa an yan ween dara bu dafa yéene ak sara ko ëpp bu la yoon laajee nga ne man ñaar laa jublu woon nag mu dal koy jàpp ñaar boo ne ñett itam mu jàppe ko ñett wal kinaayatu dàkkintal wa qismaani ñaari xaaj la zahirat aji fis muy wa muxtamilatun ak aji jamtalu fase nee na baat yi nga xam doonuñu xëppati ci digg ba fase waaye dañ koy tegtale bu bu dàkkental ko ñaari wàll lañ am na ci yoo xam ne fis na ci ñu miin ko ci am na ci yoo xam ne moom jamtalu na ko jamtalu leneen maanaam jamtalu na fase jamtalu leneen lu bokkut ak fase fa zahiratu aji fis ja wala aji feeñ ja mislu xawlika mooy kenn sa wax ja ne anti yow xaliyatun aji wet nga ci jëkkër ak bari bariyatun aji deñ nga ci jëkkër aji set nga ci jëkkër nee na baat yi mel noonu ci ñoom fañ doon taalibi téere bi arab yi miin nañ ci baat yi mel noonu kay fase wax ko bu dee ci wolof yi nag bu fekkee miinuñu baat yi itam baat yi miin ñoom rek ngay jàpp ni ki jéggal naa la ñoom mel nañ miin ko ci fase kon bu ne ko jéggal naa la te du ko tooñ ba dara jekki-jekki ko jéggal naa la dañ ko jëmee ci fase ba gis lu ko dindi waxee ñoom baat yooyu kasarih ñu ngi mel ni aji wóor ja fii ànd na koo ci naka moom laa tuqbalu deful nangu daawaahu wooteem nga fii xëy di talaax ci lu dul pase nee na baat nga xam ne fis na ci dàkkintal ci boo dee fase moom boo ko waxoon sa soxna ba noppi ne ko jubluuma ci fase itam kenn du ko gëm dañuy jàpp ni pase gi moom am na wal muxtamilatu aji jamtalu janag mislu idhabi mooy lu mel ne idhabi demal wan sarif yi ak wëlbatiwul moog demal benn lañ dañ koy firee ci wala rek waaye moog demal benn lañ al mooy dem xam nga sa soxna boo ne ko demal man naa am da nga ci jublu demal ba waxtaanu say mbokk ba yooyu maanaam la nga caa jublu demal bàyyi naa la fase naa la kon lu mu ci mën doon jomtalu na ko kon fa tuqbalu def na nangu daawaahu wooteem nga fii nafsihi ci dàq pase dàq pase mooy bañ a amuk pase waxadadihi akub limam nee na soo ne ko demal rek yem ci bu la laajee nga ne jublu moo ko woon fase ñu ne woon naa koo fase ñu ne la wax nga dëgg waaye ñaata nga jublu woon boo nee benn ñu jàpp benn boo nee ñaar ñu jàpp ñaar boo nee ñett ñu jàpp ñett mooy fa isa daxaandeem woote ne ne àndahoo naka moom araada namoon na ak talaaxa pase fal mashhur li ñu siiwee mooy àndahoo naka moom yekkoon day nekk talaaxan di am pase ne baat yi boo ko waxee te jublu ci fase kon li gën a wóoru mooy pase lay doon wa amaamaan daal la nga xam ne yàqoom dana taxaw ma maqaamal lafzi taxawaayu baat fa an waaxun ay xeet la maa li nga xam ne moom waxoo ci soo làmmiñ waaye wecc na wax ci saw làmmiñ mooy li muy ay façon la mu ne yu bëgg a wax min ha bokk na ci al isharatu junj al mufhimatu bay aji xamle maanaam boo junjee junj boo xam ne xamee nañ ca ne yow mi na ngaa fase ne loo waxoon ci saw làmmiñ waxi moom boobu sax moo tabarat lu ñu xalam la minal axras yi ci aji luu koo xam daa luu mënta wax bu junjee bañ xam ne moom yi daa jubloo fase soxnaam si ñu jàpp ne junjam boobu ak fase laa moo tax mu ne li nga axale si ci ajulu fi talaaxi ca pase ma fi talaaxi mooy daaneel loola wa min ha bokk na ca kitaabatu talaaxi binduk pase ma minal qaadiri ci ajaatan xala nutxi ci wax ne koo xam ne mën naa wax bu bàyyi wax nga daal di bind pase it moo wax nga amoo rawante ne bu fekkee mëntoon a wax bu far ko bind ndegam a wax sax bu bindee jàpp ne moo waxee kon ka nga xam ne mënta wax sax far ñu ci mën doon rek bindee pase ma moom wax ko ñooy amoo fa in kataba ndeem bind na alkitaaba mbind ma wala nga ne bataaxel ba bi talaaxi ci passé waxuwa te fekk na moom aasimun aju dogu la xala talaaxi ci passé waqaxa kon dal xale yi war ko maa la nga xam ne kataba ba bind na ko nee na soo bind passé ngay fase si soxna daf daa fekk nga dogu ci sa xol ci daa koy fase bu rek daa koy bind moo noo bi waxtaan ci saa baay mbaa saa xarit da nga caa dogu ci daa koy fase kon moom bu sa loxoy daw ci baatub talaaxu rek jeex na jàpp ne passé am na nga jox ko kayit ba moom soxna sa mbaa mbokkam ak nga bañ ko nga téye ko xotti ko ñooy moo say boo jàpp na rek moom passé moom am na mu des nag wa in bind na ko wa xayra xaasimin mbir moom du aju dogu fa laxoo ñal na ko raddu ko ak delloom ak delloom mooy bàyyi passé mi xottite ko maalam yobulux li fekk jotut almarata jigéen ja fayal sama woo kon dana ko war nee su fekkee bi ngay bind bataaxelu passé bi da doon déng déng ba xam daa koy def am daa koy bàyyi wala nga nga dogu ci daa koy bind ba noppi daal waxtaan ceeg saa baay wala sama xarit wala nangam am doguwoo ci kooku moom nee na ah, bu la neexee li fekk joxoo ko jigéen ji rek li fekk jigéen jotu ci rek bu la neexee wëlbati ko génn ci daal di koy xottite waaye boo ko tegoon ci néegam mu ñëw jël koy dutee mu nekk passé wala bu xaq da doonte façon na ak talaaka passé bi xal bi ci xolam jaasi man mbir muy aju dogu min xëyri taraddudin ci lu déng-déngi fa fi wuqooxi talaaxi nekk na ci daluk pasema xale yi war ko bi mu jarra di saalika ci lu ñu rafleeli loolee boo dégg ñu naa lu raf leen loolee mooy loolee kese rek maanaam ci loolee kese riwaayataani ñaari nettali nee na bu fekkee ci sa xol moom façon nga ci nga fa ci sa xol bàyyi sa soxna moom dégg di sa xol moom dogg nga ci moom waaye taxul na nga bind ko sa loxo taxul nga wax ko ci sa làmmiñ waaye xol moom dogg na ci fase sa soxna si dama wax ko ci xol bi sax noonu waaye waxoo ko ci làmmiñ wi bindoo ko ci sa loxo itam ndax des koy jàppee passé wala des ko jàppee passé waaw loolu am na ñaari nett li ñee nee nañu waaw moom lay doon ñee ne déedéet de bu fekkee dafa dogu woon ci su ma amee moom at wala nangam weer dinaa ko fase xam loolu luy ñëw la gannaaw ba nag xelam nekk ci kon mu dogu ci naa ko naa ko bàyyi duma ko fase ndax gis naa ne ku baax la kon loolu la mu njëkkan dogu ca bu njëkk di ci wàññi dara wala yajuusu du dagan an yatazawaja bu takkee arrajulu góor imraatan jigéen li yu xillaxaa ngir mu daganal ko li man ñeel ka nga xam ne tallaqaha fase woon na ko talaata ñetti pase wala yu xilluxaa te du ko daganal daalika loolee nee day araam nga takk soxna soo xam ne yow jubluwoo ci dara lu may ka ko njëkkan yor moom da ko bàyyi yetti yoon ñu ne ko yow mi ko njëkkan yor bala nga cee mën a jotaat jëkkër dafay jaar yow na nga ne mën naa fi jaar rek takk ko daal koy bàyyi ndax mën a dellu ca kooka neena song ngay song def loolu loolu dong moo la ci xiir yaa ngi def lu araam te bu woon xasee xam ne looloo taxit boo ko bàyyee du tax ñu delloo ko kooka moom jigéen ja nag moom mu fexe ba moom pexe am mbaa ay mbokkam fexe ko mbaa jëkkër njëkk ja fexe ko ci dara moom li li fi complot wuñ ci takk léegi rek ki takk léegi jublu ci loolu rek moom mooy yàq waaye lu dul loolu rek moom du ci wàññi dara wayuf saxu def na ko firi xam ne binaay ci njëkk wéet ga ba baax doo ak ci gannaaw ne siw moom faaw bu ko yoon xamee dana ko tas moo xam jot nañoo wéet jote dara moo xam jotewuñu dara wa in fusi xandéem firéef na ko ba adahoo ci gannaaw wéet falaxaa ko ñal na jigéen ja al musamma can gañ tuddoon mooy bu ko bu ko yoon di tas bu fekkee daa fekk ñu xas jote kon can gañ waxante woon lañ koy jox bu fekkee waxuñu woon genn nag kon ñu def canuk kem muy canuk moroomam wa moom tallaxa ku fase imraatahu jigéenam talaasan ñetti fase lam taxil la kon du daganati la xooñeel ko bi milkin ci sababu moomeel wala nikaahin du caageenu sëy xataat mooy wala nikaahin du caageenu takk soxna la joolu xataa tan kee ba te mu séyeg zawjan jëkkër xëy raxoo ju bokkut ak moom nee na sa soxna boo ko fasee ñetti fase mën naa am nga yor ko bàyyi ko dellu ko yoraat bàyyi ko dellu ko yoraat bàyyi ko mu ñett boobu ñett moom ñëpp maase na ci bokk na ñett nag bu dee fiqumaali moom nga ne ko naa la ñett du tee yoon moom fiqumaali moom njàppe ko ñett waaw su boobaa moom nee na jeex na mënoo koo fayli te sax bu ida jeexee doo ko mën takkaat faaw jëkkër daf yu jaaraat joo xam ne sart yi dañ bari ndax faaw day aajoo ba wér dama yem ci sig dong xanaa mu dem ba joteeg moom waaw bu boobaa nag bu tàggoo kooka nag doo ko mën a takkaat yow fas loolu ab dog la xaala wax na fi risalati ca risala ba maanaam téere ba tudd risala ne wala xoo ñeel na ko ay li mu namm ci la xoo mooy lil mutallaqi ñeel aji fase zawjatahu soxnaam mu ne ñeel na ko arrajatu fayli fillati ci soxna sa nga xam ne taxiidu dana mbërëg maalam tadxul li fekk duggut fil xaydati ca mbërëg ma ak taalisati may aji ñetteel fil xorrati ci gor aw taaniyati wala moom ñaareel fil amati ci jabeer mu ne booy jàng risaala borom risaala nee na ku fase si soxna te àggoo ci dayo ba kon li fekk idda ji jeexut mën nga koo fayli bu fekkee kuy gis darat la nga xam ne ay laab la ñuy wàññi li fekk laab yi jeexut ba mu dugg ca deret ja ci topp hmm, danga ko mën a fayli bu dee borom yi tam li fekk weer yi ñetti weer yi jeexut mën nga koo fayli bu dee ku ëmb itam li bi dañut ah li fekk ëmb doom mënees na koo fayli xaala wax na shaarihuha aji saraa risaala ba ne arrajxatu fay li yam li ko xaadana ko moom azawju jëkkër ja fii kulli talaaxin ci mépp passé naq sa moo xam ne yées na xadaduhu ak limam xanit talaasi walis ñett maalam yekkun li fekk nekkut maa di ànd ak moom fidaawun ak njotoo jot boppam aw maalam yekkun wala li fekk nekkut xalaa wacc xil mubaara ati ci anamuk dañoonte wala fidiyati ak jotoo ana borom ka doon saraayu saala ba nee na jëkkër ji sañ naa fay li soxnaam bu fekkee lam ko fase day benn wala muy ñaar nga xam ne àggul ci ñett bu doon jamono yi jaam amee nag kon ngay wax li fekk àggul ci ñaar ndax jaam moom ab yemukaay mooy ñaar waaye léegi jaam dañ na kon boo fasee benn rek mbaa ñaar mën na koo fayli lu may nag ca ba koy fase daa doon summikoo maanaam jigéen ji daa joxe alal ngir ñu may ko baatam loolu moom boobaa summikoo lay tudd su ko mën a fayle bu idda ji jeexee tañ juboo mu takkaat ko rek waaye du ko mën a li lim ci teg ne aw maalum yakun xalaa wajhil mubaaraati wal fidya te mel ne ak baamu loolu da ko delloo ci can ga maanaam bu fekkee góor gi daa amee loon soxna si ci wàllu can ga lu mu ko ci war a jox ci àlali sëy ji mu ko ci war a jox te ko ko moom ci mu bàyyeeku loolu te may ko baatam waaw loolu la juuli ji li mu mujj wax ci xalaa wajhil mubaaraati wal fidyati lim njëkk wax ne maalam yokku maa xoo fi daaw mooy bu fekkee dafa yëkkati rek xaalis noonu jox ko ngir may ko baatam ay wax ji sorewut kon jàppal ne bu fekkee may ko baat moom jigéen ji daa fay alal baa ko amee loon mu bàyyee ko ko ngir may ko baatam ah su boobaa du nangu fay li bu ëdda ji jeexee tam bëgg koo takkaat nag mën na koo takkaat buñ juboo ñoom ñaar wa innama kaanat naka nekk na loxoo di ko ñeel arrajaatu fay li maalam tan xadi li feeg jeexut alxiddatu xidda ja li àndal xismata ngir naka buumug sëy ga bay na zawjayni diggante jëkkër ak jabar laatan xatixu du dog bimaa ci loo xam ne doona salaasi nekk na di yees ñett fil xorrati ci gor isaalam yëkkun dem nekkut maaxoo di ànd ak moom fi daawun ak njoto maalam tan xadi li feeg jeexut alxidatu xidaja li tax mu sañ koo fay li mooy buumu sëy gi moom li feeg jeexul tàkk rek te jeex gi tàkk mooy mu fase ko ñett yoon bu dee gor te kon jaam amatul jëru nga naa bu dee ñaar ndax jaam amatul kon man nga ne li fekk lam ko fase matul ñett rek te ak fay alal mbaalu koy nuru amu ci rek kon góor gi mën na koo fayle fayli soxnaam fayli nag mooy rek mu jëlaat soxnaam soxna sa du sañ bañ ay mbokkam duñ sañ a bañ bu amee jafe ci aada wala la jafe mu koy toppaat di ci sonn di ci dox ko waaye bu dee ci yoon moom day jëlaat rek soxna sa du sañ a bañ mbokk yi duñ sañ a bañ war rajxatu fayli takkoon dana nekk bind niyati ci yéene maxal xawli ànd ak wax aw bi niyati wala ci yéene doonal xawli ci lu wax fayli moom nee bu ko waxee ci làmmiñam te fas ko yéene ci xolam itam mooy nga xam ni mu ko waxee moo nekk ci xol bu boole ci kooku moom fayli gi am na ci biir am na ci witti bu ne jëlaat naa saa soxna mbaa fayli naa saa soxna rek te fekk mu fas ko ci xolam rek fayli dal na am mu des na bu ko waxee ci xolom dong maanaam da ko yéene rek waaye waxu ko ci làmmiñam kooku moom fa na waa ndéem yéene na fii nafsihi ci xelum boppam ni ànd ko naka moom raajaha fayle na ko faqad saxaat kon wér na rajxatuhu fayleem nga fi maa ci li nga xam ne bay na ko nekk na digganteem wa bay na laxay diggante tax la kawe na su fekkee fayle nga lu mu fas ci yéene ji rek waaye leeralu ko nag ba àttekat koo xam kon digganteem ak borom moom fayle gi wér na waaye digganteem ak àttekat moom ak ñi nga xam ne saahir rek lañ xam duñ mën a xam ba xam faylu na am nit wala win farada doon te wéetoon na allafzu baat ba doona niyati ci lu dul yéene ja sax saxaat kon lu wér la ko ñeel ko arrajaatu fayli ga bi daalika ci maa ci la nga xam ne bay na ko nekk na digganteem wa bay na laay diggante yàlla temps laa kawe na nee na su fekkoon ne daa wax ci làmmiñam ne fayli naa saa soxna te fekk na ci xolam jubloo ko da ko bëgg a dënk rek bu dikkee mu xatal ko sonal ko rek la waaye jubloo ko digganteem ak boromam wala mi rek la wax kooku moom nee na àtte ka da koy wax ne ko wax nga dëgg sa soxnaa ngoog ndax moom zahir rek la xam waaye boo ko seetloo ci digganteem ak boromam fay liwut te warta jotee joteek moom warta defee moom dara lu mu yëfi soxna su ko defee moom rek daal di def bàkkaar daal di am araam tax mu naa wal wattu te laal ga bi dooni niyéeti ci dul di yéene ja du nekk araj xatan dik fay li wala saa yoo xam ne nee na fayli na ko rek noonu ci làmmiñam te fekk jubluwu koo fayli ko bëgg a dëngi rek kon na xam ne fayliwut te yàlla xam na ko ndax yàlla xam na la ci xolam su boobaa nag bu mu moom daray soxla nit ki jéem a joteeg moom bu ko defee rek def lu tax na yoon wax ko dara ndax xolam yàllaa ko xam dañ koy bàyyi rek noonu wa fil ishaadi nekk na ci seere looga xala rajxati ci fayle ga xaw ci fayli ga xawlaani yaari wax bi lu jóobi ci ak war wal istihbaabi akuk sopp maanaam ndax bu dee faylu soxna war naa sàkk ay seere ne leen seere leen ne sama soxna si faylu naa ko am ñu ne mënta ñàkk am ñu ne mën naa ñàkk dañ koo sopp rek waaye sopp gi moom lu wér la ndax moo gën a wóor wut ay seere bañ xam ne jëlaat nga sa soxna moo gën a wóor albaabu lii mooy bunt bi attaasihu bi ak juróom-ñeenteel fil bay ci jaay mbirum jaay njënd wala hoo ñal na jaay talaasatu arkaanin ñetti ponk al awalu bu jëkk bi maa mooy la nga xam ne yar dullu dana tegtale xala rida ci ngërëm mooy ci xol bu sedd min xawlin ci wax ka xawlil baayi ni ki wax aji jaay ji ne bi atu ko jaay naa la wa xawlil mushtari ak wax aji jënd jëne istaritu jënd naa ponk bu njëkk bi ci njaay mooy ni ñuy deflantee mbaa na ñuy waxantee bañ xam ne kii lim doon jaay nangu na nangu na ko jaayee ci lii ki doon jënd itam nangu na ko jënd ci lii loolu mën naa doon wax mën naa doon jëf nekk nga ne nga ne sama téere bii dama koy jaayee téeméer am ko ne la nangu naa koo jëndee téeméer waaw ah, loolu kon wax njaay mi façon aw fi'lin wala jëf kal muhaataati niki ak jokkalante ba tey njaay mën naa amee ci kenn du wax benn baat jëfante rek lañ def niki dangaa teg almet yow muy jaay kii jënd xam ne almet juróomi dërëm lay jar rek mu daal di teg juróomi dërëm ngay séen mu daal di tegi almet dem loolu ba tey baax na ndax kenn waxuñu waaye nga xam ne ni moom kee xolum sedd na kee xolum sedd na ak taani ñaareel bi alxaaqilu mooy aji fas njaay mi waxoo moom albaa'ihu mooy aji jaay ja wala mushtari ak aji jënd ja maanaam ponk ñaareel bi mooy ñaar ñi defalante njaay bi te mooy kiy jaay ak kiy jënd boo waxee alxaaqilu ñoom ñëpp la dugal wa yushtaratu def na sart fii sihhati bayhi ci yorug jaayam añ yekkoona mu nekk mu may yisan di aji xàmmee falaa yan xaqilu du fasu bayu xayrihi jaayu kudul moom wala shiraawoo du caageen ak jëndam li sixarin ngir ak ngone aw junoon wala ngir ak ndof aw sukarin wala màndi aw naxwi zalik wala lu mel ne loola nee na balaa njaay mi wér ki koy def ànd ak saboom xam li muy def bu dee gone goo xam daa gone ba ëpp bu jaayee du baax bu jëndee du baax bu dee gone gi tax na ak bu ci mën a xàmmee sax boo ko dee wax du mën a tont tont lu wér mbaa ngay wax kooku bu jaayee du wér bu jëndee du ba tey bu fekkee dafa dof dañuy bàyyi kilifaam jaayal ko jëndal ko waaye moom ci boppam bu jaayee du wér bu jëndee du wér wala mu màndi màndi moo xam ne tàggoon ak tey kooku bu jaayee du wér bu jëndee du wér wala yel sumu du war nag albay jaay ga illaa min mukallafin ndare mu tukkee ci mukallaf maanaam jaay gi mën naa wér te du ko tax a war jaay gu war mooy balaa kenn sañ a xàcc sa morom ànd ca yow bu fekkoon ne xale bi xàmmee na ñëw nga jaay ko njaay mu wér na ndax xam nga xale bi xàmmee na waaye bu mu kal bu kilifaam ñëwee bu ko sañee dindi bu ko neexee dindi ko bu kilifaam ñëwee rek bu ko neexee dindi ko waaw moo tax balaa njaay may war te su ko sañee dindi mooy ñaari mu kàllaf defante ko comme ñaari mu kàllaf defante ñoo xam sañ nañoo defante moom ku ci bëgg a xàcc sa morom day nangu njëkk waaye doo sañ jékki-jékki ne ko faaw day xàcc lu sa morom nangu leen ngeen mën a xàcc. ak bi almaqoodu mooy la ñuy fas njaay ma xale waxoote moom ak tamanu mooy njëgg wala mos mënu ak lañuy jënd xam nga wax nga wax nga nañuy waxantee bañ xam ne njaay mi juboo nañ ca wax nga léegi jaaykat bi jëndkat bi mu des nag la ñuy jaay ak jënd maa la jaay ak lañ koy fay njëkk loolu mooy ponk ñetteel bi wa yustaratu def na sart fii maa ci ñoom ñaar xamsatu shurootin juróomi sart maa la ñuy fay muy njëkk ak la ñuy jaay dañuy sart sart yi ñu doon juróom la ci wàññi ak taxaaratu moo di ak laab falaa yajuusu lu dagan bayxu najisin jaay sobe kal xadirati ni ki ay doxantu wala muta najisin lu caageenu aji sobewu laa yumkinu jëf du jàppandi tathiruhu ak laabalam ka seyti ni ki diw maa li ñuy jaay mbaa li ñuy def njëg day aajowoo yoon jàpp ne laab na bu dee jëmmi sobe ni ki neefaray fas wala neefaray mbaam ak yëpp yëpp sobe rek ni ki sàngara hmm, kenn du ko mën a jaay kenn du ko mën a def njëkk teew na nee bu dee dañ koy def engrais maanaam buñ ko dee tosee ca tool yi mënees naa jaay hmm, lu mel ne neefare fas wala neefare mbaam te sobi la waaye da dañ koy defare tool ba rek daañu may ak jàppandal ci ñu jaay ko ngir loolu ah, loo xam ne itam dafa ruy ba noppi sobi dem ca xam kenn du ko mën a tàggaleel moom kenn du xam fu mu tàmbalee fu mu yem mel ni diw wala ñeex wala lem bu ca sobi demee xam ne kenn mënta xàmbalee kenn mënta xàmmee fu mu tàmbalee fu yem jeex na mënees koo jaay mëne su ko defu njëkk wal intifaam ak jariñu bi ci moom intifaaxan ak jariñu charxiyan guñ ko jug yoon ah dañuy sart ci lañuy jaay mbaa lañuy jënd muy loo xam ne yoon jàpp ne am na njariñ waaye bu dee jumtukaayu fo yoon day jàpp ne jumtukaayu fo amul njariñ xam ne kenn du ko mën a jaay ak lee mu ci bëgg a teg falaay joosul dagan bay xu mu ak li jaay luñ araamal ak lekk kal farasi mel ne fas wal baxli ak baxla wal ximaari ak mbaam ida ashrafa ndem sapp na xalal mawti ci dee mboolem yi nga xam ne ak jur la goo xam ne ñu koy liggéey loo ko jariñoo rek ci liggéey waaye kenn du lekk aw yàppam mel fas wala baxal wala mbaam su demee ba toll ci sukkuraat du nangu ko ko jaayati ndax dañuy jàpp ni amatul njëriñ su fekkee am na ñuy defar ñu ñuy yar ay rab te nangu koo jënd ngir jox ko rab yi ñu lekk it du tax nga sañ koo jaay ndax yoon day jàpp ne rek moom loolu du njëriñ loolu du njëriñ loo xam jàppe na ko njëriñ waxada mu nax ak akum ñàkk a tere warada googu rot na fii xëy nii ci jëmam li ngay jaay mbaa la ngay fay njëkk bu mu doon loo xam ne yoon ne na woon bu kenn jaay to yoon ne bu kenn jaay rek jeex na looloo tax falaa yajuusu lu dagan bay'ul kalbi jaay ab xaj xaj yonante bi dana aaye jaay ko nga xam ne mënoo koo jaay mënoo koo deful njëkk ci dara wal qudratu ak àttan xalaa taslimihi ci jébbuleem dañuy sartu loo koy jaay mbaa loo koy fayee njëg bu ngeen waxee ba noppi nga mën koo yëkkati jox ko waaye bu dee loo xam mënoo koo jébbali bu ngeen noppee du baax ci kaw loolu fa laay juusu lu dagan bayxul aabixi jaay jaam bu daw wala ngi du di caagéenu gëleem ak chaari di koy aji dàngang dàngang mooy teg njëg sama samaki ak ay jën filma yi ci ndox ah buñ ne daa daa war a nekk loo mën a jébbale kon lépp lu réer mbaa lu ñu sàcc doo ko mën a jaay ndax boo waxee moom bu noppi doo ko mën a yëkkati jox ko jamono yi jaam amee bu jaam bu dawee xam nga danga ko jàppam déet doo ko mën a jaay doo ko mën a def njëkk bu gëléem gi tegee një noonu jën yi nga xam ne kenn napp ko mu ngi ci biir ndox mi xam ni daañu ko nappam déet ba tey noonu kenn du ko jaay kenn du ko def njëkk wal xilmu ak xam bi kullin ci képp mina tamani ci njëgg wala mus mani ak lañuy ñuy jënd bokk na ci sart njaay la jaay dañ koy xam bu wër fa mu tàmbalee ba fa mu yem njëg gañ cey ñu xam ko bu wër fa tàmbalee ba mu yem fal jëxlu réere bi ximaa ci ñoom ñaar ñëpp aw bi ahadihima wala kenn ci ñoom ñaar mubtilun aji yàq la nee na bu ñu xasee umpale njëg yi baa ñu umpalee dara ci la ñuy jaay rek su boobaa njaay mi du baax mislu an yashtariya kem mu jënde bi sinati xajarin ci poab doj poab doj muy màndaxim doj mac xool bi ñu réere maanaam bu ñu aw doj woo xam ne xamuñu nu mu diisee mu ne dalay peesee doj wi ba mu daanu nangam ci gerte mbaa nangam ci miskit nga fay ko nangam ci xaalis lu baax xam nga bu ñu xasee xam ne pooy poob liibar la mbaa genn wàll liibar la mbaa kilo la moom baax na ndax xam nañ diisaayu poo bi waaye li fekk xamuñu diisaay bi ñu diisaayu poo bi rek duñ ci mën a jëndante duñ ci mën a jaay duñ ci mën a jënd wa turaabi sawaax yi na ak suufu tëggkati wurus ya xaalis maanaam ñu tëgg wurus ak xaalis suuf sa nga xam ne moom la ñuy tiim mën na am xaalis ca man na am mancaar ak wurus mën naa mu bari mën naa mu néew duñ nangu kon ku jaay suuf soosu ndax xamuñu dara nekk na ci am déet sax lu ñuy jeexam déet ak bu ci amee bañ di ko jeex dana bareem day neew loolu daa dugg ci bi nga ne faaw dañu war a xam njëggi gi faaw xam la ñuy jaay moo tax ñu aaye loolu faslon yaxarumu dana araam ribal fadli ribaay ëppante waxwate moom a siyaadatu mooy dolli wa riban nasaay ak ribaay yeexe waxwate moom a taxiru mooy yeexe fi naq di ci kee waxu moom kee ak dahabu mooy wurus wal fiddatu ak xaalis ah nee na bu ngeen dee weccee wurus ak xaalis ñu koy wax jaay rek waaye weccee lañ ci jublu maanaam boo ko weccee wurus ak wurus nga wecc xaalis ak xaalis daa war a yem képp te muy loxo loxo boole ci waaw dañoo war a yemoo te muy loxo ak loxo nga xam ne fa laay joosu du dagan bay ko dirhamay ni jaay ñaari dërëm bi salaasat jënd ñett maanaam doo ko mën a jox ñaari dërëm moom mu jox la ñett hmm. ci bu njëkk na moom xaalis daa xawoon a wute bari ay xeet léegi nag suñu dërëm yi moom yenn yee xëy na hmm. boo weccee ñaari xaalis yu bokkul nag mel ne xaalisu réew mi xaalis France mbaa dollar moom mën nañoo ëppante waaye bu dee xaalis bi rek moom warta ëppante bu ngeen dee weccante daa war a yem rek wala bay fu dirhamin di jaay génn jaay ab dërëm bi dirhamin jënde ab dërëm ilaa yawmin ba ci benn fan aw saaxat wala wenn waxtu lañ ci misaal anaam bu fekkoon da ngeen di weccee ay dërëm dërëm yi wuute ba mu yor gënal la ba mu yor gënal ko itam day aajowoo nga jox ko fi saasa mu jox la fi saasa gannaaw bañ jamoo lee dërëm lee dërëm itam bu fekkee da koy jox léegi moom bu ngoonee mu door laa jox wala bu guddee mu door laa jox du baax ndax yeexe googu moo ko yàq te aajowoo ñu yemoo ba noppi muy loxo loxo bu ëppantee muy riba bu ci yeexe amee kay joxe te kay joxewul fasaasa muy riba wa bayxul muraabaxati jaayub muraabaxa jaay sun aji dagan la laakinal ahab waaye la gën a sopp xilaafuhu mooy lu wuteeg moom li katratil bayaani ngir barik leeral ga xalal baayi war aji jaay ci moom furubama yenn saa amaana mu fàtte maa loo xam ne yaduru day lor aw yasxo wala muy juum fa yantaqilu tey toxu dihnuhu xelam min shay'in tukkee ci dara ilaa xayrihi jëm ci dul moom jaay muraabaxa daa xaw waar mooy marchandise bi ngay jaay da ngay tàmbalee na nga ko amee woon ak fam jaar ba xam nga ne nangam la boo ma tegalee nangam pour cent nag ma jaay la ko wala xam nga daa wóorut ndax léeg-léeg mën naa am nga fàtte ci loo xam ne lu mën a yokk njëg la mbaa lu ko mën a wàññi la ndax day ajoo nga tàmbalee fa nga jëndee marchandise ma fekkee da ngaa fay lépp fi saasa ak boo fayee lee desee lee amel kooku lépp daa war a leer ak la nga fay ci transport ba ak bu fekkee jot nga ko dugal ci benn magasin dénkaani ko fay ca nangam lépp danga nga koy wax bu àggalee nga ne ko nag ba ma tegalee nangam pour cent ma jaay ma jaay la loolu na daa wóorul ndax amaana nga fàtte ci loo xam ne day feeñ ci njëgg doon ak ngaañ yow mbaa doon ngaañ li ñu gën a taamu daal mooy bay xul musaawama jaayu ko waxaale wax ni lii nangam laa koy jaaye ngeen waxaale rek bu ngeen juboo rek nga jaay ko waaw lu ngeen juboo rek nga jaay ko ko waaye daal bañ wax nangam laa ko jënde woon di ca ba wax ca loo xam ne ca amut loolu di daal di indi ak araam walaayu juutul dagan fil bay ci jaay at tadlisu nëbb ayub waxoo moom kitmaanu xay bi silxati mooy nëbb sikkus marchandise ma xaanil mustari walis aji jënd jaa waaw daa wax ne boo dee jaay boo ci xamee sikk faaw nga war koo wax boo nëbbee sikk ci li ngay jaay rek def lu araam sépp sikk soo xam ne boo ko xamee te te wax ko ko mu daal di bàyyi ba ñu jënd ba la mënoon ko ci man dana ko wàññi faaw war nga koo wax boo ko nëbbee rek def lu araam moo tax mu ne wayjib dana war xalal bàyyi ci aji jaay ji al ixbaaru xibaar bi kulli shay'in ci mépp mbir moo xam ne ida axbara ndeem xibaar na bi ci moom al mustari jënd ja xalat daal di néew raxabatuhu xememam xememam mooy bëgg-bëggam waaw nee na lépp loo xam ne soo ko waxee benn du jëndati mbaa lam ci mënam du ko ci mënati rek war nga koo leeral fay jibu dana war xale yi ci moom ay yu bayyina mu leeral ne ànd xoo naka moom xaqada fase woon na njaay mi xalaa kasaa ci nàngam wa naqada te mu teewaloon xan xoolis ko kasaa nàngam wallahu yàlla alamu moo xam dëgg-dëgg loolu daa dellu ci bayul muraabax bi nga waxoon ci gannaaw moom sësul ci lii da ko andi foofu waaye ci gannaaw la sës mooy jaayul muraabax ge nga waxoon ci gannaaw xam nga ngay dem ba àggal ne kon doo tegalee nangam pour cent ma jaay la kooka moo aajowoo nga leeral ne ko bàyyi jubóo moom nangam laa jubóo ci njëkk waaye ko teewalal nangam desal ko nangam bu fekkee loolu amoon na ci loolu war nga ko leeralaale hmm. albaabu lii mooy buntu bi alxaashiru bi aji fukkeel fil faraidi ci masalay miraas miraas ni defe ni moom la jafee sori na ko lool ndax moom daanaka daa bëriwut ak wuute baa dara boo déggee wuute daanaka kenn kaa juum rek waaye luñ ci wuute daanaka amu ci te boo takkee ñi nga xam ne ñooy doon ak seeni cër ak jiraate bi rek la ca des mooy benn sew sew yi nga xam ne maanaam benn benn sew sew yi nga xam ne na ci faral di feeñ te buñ ci tollu daañ ko faral di leeral léeg-léeg ah, rek moo ci am solo alwaarituuna way donn ya mina rijaali ci góor ña xasharatun fukk la ci lislaam ñi donn tey góor fukk la waaye boo ko feccee muy fukk juróom al ibnu doom bu góor muy kenn wob na foo ak doom bu góor doom bu góor maanaam doom bu góor ak sët bu góor bàyyi ko ci doom ju góor bu ko defee muy ñaar wa in safala ak doonte suufe na doonte suufe na mooy doonte sët bi dafa nekk sëtaat mbaa sataataat waaye diggante moom maam ji moom kenn ko gën a jege nekk fi rek mooy doon wal abu ak baay nga baay day doon doom ja wal jaddu ak maamu góor wa in xalaa ak doon te kawe na maamu góor di